ay xew-xew la yu am na buñ ñu wooyee ñun waa 7TV émission xew-xew dañu ñëw ànd ko kër ñu toog mooy ñaari tali kër gi ñu toog mooy kër Alaaji ma Jama Fall nekkoon nitu yàlla ku yàlla baaxal nekkoon transporteur bu mag tey nag xew-xew dal fii si këram ndax doomam bu ñuy wax Bamba Fall moom moo amoon doom doom ji mujj ñàkk bakkanam doom ji nga xam ne waajuram la ko tudde woon mooy bébé ma jama moom itam ñàkk bakkanam si ñàkkin am anam bu doy waar moo waral tax tey xew-xew ñëw fii ci kër gi fas yéene ànd ki nga xam xamante ne mooy waajur wi muy Bamba Fall ñu laaj ko lan la xew-xew bi dale ci kawam doom jooj di bébé ma nan la ñàkkee bakkanam ndax coow li bëri na lool lool lool lool. waaw Bamba ñu ngi leen waaw maa ngi leen di fay waa 7TV. voilà tey 7TV dafa ñëw seet si la pour fas yéene waxtaan ak yow si cas bi nga xamante ne moom moo dal ci sa kaw boo ñu doon wax lan moo xew. Ah, li xew moo di euh, dañuy sant yàlla borom bi ndax moo ñu jox euh, suñu doom macha allah bisub tam xarit jeudi le ci guddi la yàlla borom bi dogal suñu soxna euh, docteur bi ko doon faj bi ko doon suivre dernier rendez-vous bu ñu dem mu ne ñu bu yëgaatee dara lu koy metti rek bu boobaa mu ñëw ñu defal ko césarienne mais macha allah mën naa ni neuf mois yi matoon na daanaka waaw parce que mois de décembre la départ ba mois août ci lay am neuf mois mais le 27 juillet ça veut dire que neuf mois yi mën naa ne bu amee lu ci manqué ay trois jours wala. quatre jours yooyu lay doon waaw sant yàlla euh, guddi gi mu am lu muy yëg guddi tam xarit lu koy metti ci lañu ñu woo docteur bi ka wane woon lu koy metti pour mu woo ko moom mu ne ñu euh, clinique Pasteur la war a dem am ku mu fa defal césarienne pour que soxna si mu ñëwaale moom it aussi mu defalaale ko césarienne sama soxna ne ko te nga ñëw yóbbu Abass ndaw waaw ah, Abass Ndao parce que boobu la ñuy gën a attan moyens yi quoi Abass Ndao waaw ci la wax ni que Abass Ndao dafa am dara lu fa paan quoi loo xam ne xëy na jour boobu guddi googu mënuñ fa woon defee césarienne bi waa léegi nag ñu nit ñu fexee def tout dem foofu clinique Pasteur fekk ko fa ci guddi gi guddi tam xarit bi ah, ci la ko defal césarienne waaw donte ñun aussi dafa amoon benn somme bu ñu indaale woon matalu ñu woon ci saa si neuf cent cinquante neuf cent quatre vingt mille la ñu laaj. pour césarienne pour césarienne kese neuf cent quatre vingt mille la ñu laaj fekk ñun ñu yor trois cent mille pour avance ko demee incha allah ma indi la ah, waaw parce que am na xaalis boo xam ne mënoon naa ko récupérer jot ko mais comme guddi gi yëf bi daf ñu bett mënoo dem di retirer mënoo kii dara pour toppatoo sa soxla waaw donte nag trois cent mille yooyu ba ma ko indee maa ko waxoon maa koy waxaat. difficilement lañ ko jël avant ñu kaay jël xeetum ñaan bu nekk ñaan naa leen ko ne leen suba damay dem euh, retirer li nekk sama compte pour compléter leen seen xaalis ñu ne ma suba sax férié la lendemain tamxarit ñëpp xam ne férié la man leen daal lu mënti am suba daal naa leen indi seen xaalis te it macha allah yàlla suturaal na ma ba ñoom it la ñu waxante woon mën naa ni euh, def naa ko sax sax ñaa wax loolu parce que koo jox 300000 avance ñëwaat yëkkati 495000 jox ko. donte am na lu ndaw li ci desoon mais loolu lu waral ñoom euh, jëluñ ko woon ñëwoon naa pour ñu facture parce que sama soxna dafa waroon a génn li waral jëluñ ko woon dañ doon xaar ñu dem euh, fële hôpital Albert Royer waaw parce que ñoom aussi ñoo ñu orienté Albert Royer sama soxna ñëw na fa defal nañ ko césarienne macha allah ma gis sama doom ci guddib tam xarit bi guddib ajuma bi mu neex lool waaw macha allah yàlla dimbali ma it dimanche bi ma tudd ko. trois jours après tuddee ko sam waaju bu góor defal ko lépp lu ñuy defal jullit rayal ko xar wàcceel ko kaamil def laax lu munta ñàkk yépp pour tamit wax dëgg ba ñu éviter tamit xew après parce que am na ci luñ jugee loo xam ne xëy na ay fajub hôpital la y duma d'accord léegi man li ma dégg. mooy euh, am nga am euh, jullit yi d'habitude dañ koy faral di def boo sa doom amee ñetti fan nga tudd ko man am naa benn tonton buy def noonu nga tudd ko ci hôpital bi day nekk benn frais mais après bi xale bi juddoo judd na nga tuddee ko sa waajur muy bébé ma mu def ñaata fan ci clinique bi. Euh, mi ngi juddu jeudi ci guddi waaw vendredi samedi dimanche parce que mën naa ni trois jours dimanche ma tudd ko. lundi aussi ci clinique bi la ko fekk mais lundi ci guddi la ñu bëggoon eh, yóbbu ci eh, hôpital Albert Royer waaw waaw moom moo nekk nii soxna Bintu eh, kii bébé Madiama waaw waaw moo nekk noonu waaw ci biir hôpital bi waa photo tudd yi aussi lépp mi ci waaw waa am na ci sëñ Abdou Mbacke doomu alaaji Baara Mbacke Falilou moom it macha allah di sama kilifa di suñu sang te ku ma bëgg ku ma yàgg a jàppale waaw ba may takk soxna macha allah ñëw na kër gii la ma fekk ba may tudd ngénte sama taaw bi aussi en 2019 macha allah ñëw na waaw waaw ñoom moo ñëwoon ci clinique bi sëñ Abo Mbacke it doomu sëñ Ibra Mbacke mu sëñ Fall ñëw na Chérif Assane Fall doomu sëñ Ousseynou Fall ibnu Cheikh Modou Moustapha Fall sama la moom it doomam la yabal sëñ Ousseynou doomu sëñ Modou Moustapha Fall ak it sëñ Xaadim Mbacke doomu sëñ Abdoul Abdoulahat Mbacke mu mu sëñ Muxtada Mbacke xaadim rasul waaw li waral ma tudd leen nag parce que ah ñun de ñun taalibe yi loolu lañ baaxoo ñun ñun fu ñu ne mbooloo bi lu mu bëri bëri buñ tuddee ñu sant Mbacke boole nañ ci ñëpp waaw ñoom lañ jiital si suñ lépp nag yàlla leen yàllaa leen jiital ñun ci ñun waaw ñun ñun ñu doy waar nii yàlla leen jiital suñu kanam moo tax lu waral ma tudd leen ba ñu tudd ñeneen ñi ñoom dañoo yóbbaale ñëpp waaw léegi ñu tudd xale bi kon xale bi mu juddoo dara jotu ko woon. dara jotu ko woon. léegi kon fan la coow li nekk lan analyse moo nekk nii ki judd le 27. le 28 ñu defal la analyse pour xool ba xam indaale benn doomu jàngoro. ak keneen tamit koo xam ni docteur Alpio daf ni woon keneen ki muy defal césarienne. kooku la bëgg a boole bu paree ci kooku rek jublu si soxna si kooku mën naa ne vers 23h la ko defal césarienne sama soxna minuit macha allah la am tout tànk ñaari xale yooyu juddu le lendemain ñoom ñaari xale yëpp seen waajur yi fay mille francs lu jotewul dara ak lañ fay clinique bi pour que ñu defal leen analyse xool ba xam indaale wuñ benn doomu jàngoro mais xam nga te analyse yi ñoom wax nañ ñu que bu fekkente ne amu leen ko mën nañ ko bañ a def. man le pour ñun police d'assurance moo tax yàlla suturaal ñu ñu yëkkati li ca war joxe ko pour def ko. nga yow léegi nga def analyse bi xool sa doom fekk indiwul benn jàngoro. waaw indiwul benn jàngoro mais dañ ne woon dafa animé mais animé ak xale mag sax moom mën naa ne mën naa animé parce que manqué deret tamit ak nit ñoo ànd. xale buy doog xale buy doog a juddu ñëw xëy na ñoom ñu gis ni que ci biir analyse dafa animé mais defal nañ ko lañ koy defal mayaat ko tuuti deret macha allah xale bi nekk si jàmm ak salaam dëgg rek. waaw parce que bu nekkuloon si jàmm ak salaam yaay ji du ñëw kon pour nàmpal ko tey it moom duñ ko indil yaay ji ci saalam saal bi mu entré woon. donc yaay ji bi mu accouché indi nañ ko xale bi ba si saal bi mu nàmpal ko. waaw ci saa si nag ba mu assi ba mu accouché ci saa si indiluñ ko ko dimanche ba ma koy tudd jeudi ci guddi la yaay di accouché mais euh, dimanche ci guddi la yaay ji soog a gis doomam jël ko nàmpal ko. waaw parce que yaay ji déedéet xale bi mat na macha allah mi ngi woon ci jàmm ak salaam waaye xëy na yaay ji tamit ak ñoom liñ ko defal lu jëm xam nga opération nekkul nit ki ci saa si ci li ma yaakaar lan lay jox sa doom donte nag nit mën na la defal opération sax après euh, euh, la lendemain sax ñu indil la sa doom waaw mais peut-être xëy na docteur yi ñoom it ñoo amoon lu ñu bëgg dolliwaat ci xale bi rek mais man ki ma gis guddik tam xarit sama doom boobu macha allah mi ngi woon si jàmm ak salaam. léegi ko lan moo xew ba mu mujj nan lañ mujjee ba coow li waral euh, lii yëpp. waaw parce que première analyse koo ko defal nga ni dafa animé mais nga defalaat ko beneen deuxième analyse le lundi xam koo defal analyse vendredi defalaat ko lundi lundi boobu ñoom dañu waroon jox suñu doom ñu yóbbu ko après nag lu ko arrivé ñu xam ne ñun génn na ci loxo clinique Pasteur waaw mais waa clinique Pasteur ñoom ñoo ñu defloo deuxième analyse bi reçu bi moo nekk nii. boobu ñu ngi fay trente et mille neuf cent pour pour ñu gën a am assurance balaa ñu yóbbu xale bi ñu xam ni yaram bi macha allah il se il se sent bien waaw léegi nag euh, lundi kii dimanche ñu tudd ko lundi ñu defloo ñu beneen analyse ah euh, ñu def analyse ba pare ñoom ñu gis ni que euh, jaunisse te ñaari xale ya ñu defal kii ya defal defal césarienne seen waajur ñoom ñaar ñëpp ko amoon. jaunisse waaw loolu nee nañ ñenn xale yi ci bëri parfois dañ koy judduwaale waaye lumière bleue la leen faral di teg pendant deux trois jours loolu dañ ci seen yaram waaw daan nañ ko fajee na xëy na ci beneen système lu jiitu xëy na lumière bleue yooyu di génn waaw mais léegi loolu lañu lañu lañu la ñu xewal mais jaunisse boobu moom mu ne moom la gis mais jaunisse kase loolu man ci li ma yaakaar lëndi boobu ñu ñu defal analyse boobu ñun téye nañ suñu doom ba sama taaw bu jigéen téye na raqam macha allah temps bu yàgg xale bi macha allah nekk si jàmm ak salaam nag nañu kii waajuram téye ko foowee ko ba man ma foto ko xam nga xale boobu it waaw waaw mi ngi noonu mu ngi si jàmm waaw waaye nag ñu ñu yebal ñu euh, beneen kii ñu bëgg ñu transférer ñu fële euh, hôpital Albert waaye te man li ma njëkk a jaaxal si foofu mooy ñaari nit nanga leen di defalee césarienne jour tam xarit guddi tam xarit ñoom ñaar ñëpp nga defal leen première analyse yi eh, le lendemain vendredi deuxième analyse nga defal loo leen ko ñoom ñaar ñëpp eh, lundi ñoom ñaar ñëpp nga gis ni ñaari xale yëpp dañoo am jaunisse nga bëgg leen a faj nga transféré kenn ki bàyyi fa keneen ki te keneen ki clinique Pasteur mardi bi moom directeur bi doomam mi directeur clinique Pasteur moom ma ko wax. moo ma ne keneen ki doomu mujj na génn bi mais pour ñun ñu transféré ñun jëmee ñu clinique euh, kii euh, hôpital Albert waaye loolu man daf ma jaaxal ñaar ñoo xam ñoo bokk maladie kay ñoom ñaa nga war a boole bu dee seen machine nee ngeen seen lumière bleue da ngeen ko gaare lu yàgg amoo leen ci woon soxla tax doole bi muy joxe xëy na joxewu ko moo tax ngeen transféré suñ doom feneen mais loolu it dafa yomb maa ko waxoon maa koy waxaat dafa yomb loolu nit boo jëlee xaalis fay clinique lépp li nga soxla dafa war a nekk amul machine bi dafa paan machine bi dañ ko gaare lu yàgg loolu du lay ndax nit boo dee da ngeen ko fayeeku moom mu jëm kim kàttanam pour fay yéen it fexe leen ba lu mu soxla ci wér-gu-yaramam na ngeen ko ko defal waaw mais nee nañ seen machine bi dafa paanoon tax ñu jël man man bu doon sama doom sax dañ ko boole ak doomu suñu mbokk yu baax yooyu nekkoon fa suñu moroom lañ mun naa ne maag sama soxna couple jeune la macha allah ñu am doom ñoom yàlla na seeni doom bi dund lu yàgg te amal leen njariñ waaye nag ñaari xale bu ñu bokkee feebar kay boo leen bu dee jaunisse nga ci gis mais boo leen transféré yóbbu leen ñoom ñaar ñëpp ñu tegal leen lumière bleue mais nee nañ ñoom seen lumière bleue ñoom marché na ci beneen xale bi waaye amul doole ci ci <laughs> moo tax 4 euh, jours si ginnaaw ba rek sama soxna bañ toogee directeur bi ay ree sax daf ñu mujj jàpp parce que xam nañ ni ñoom la ñuy wax dëgg rek a neex yàlla waaye daal daal dafa borom xel xel mënu kaa nangu. d'accord yow da nga gis ne mbir mi dafa am lu louche. négligence ba sa doom mujj ñàkk ba kanam wala lan la. loolu la parce que négligence mun ta weesu nit ki ñëw euh, ngeen proposé ko clinique man néew ma maa dem clinique de parce que man aw ma moyen bu extraordinaire xëy na bay dem clinique donte nag ku bëgg lu baax nag mën nga fa dem. mais ku ko yàlla may moyen bi moo fay dem ñun dañu ko proposé ñun ñu laaj Abass Ndao ñu proposé ñu foofu ñun dem nañ suñ kéem kàttan def nañ ko ngir fay la ñu waxante mais aussi ñoom waruñoo wax nangam dafa paan pour ñu yóbbu leen feneen feneen fañ dem man maa fay sami oto bi oto bi ñëw consulter xale bi ba mu nekk ci jàmm man maa ko fay 20000 francs 35000 francs sax la ñu waxoon ñoom ñoo ñu ko mujj wàññi defal ñu ko 20000. donc ñoom ñu leen proposé feneen yëkkatuñu xale bi yóbbu ko ak ambulance. am nañ ñoom seen ambulance ñoom seen oto boo xoolee ci photo yi sax ñi ñëwoon ci tudd bi di nga gis ñoom seen ambulance si ginnaaw seen ambulance mi ngi garé ci buntu clinique bi ah mais man kat xam nga ñun tamit parfois euh, docteurs yi instant bi euh, biñ lay proposé dara sa xel du mën a dem ci euh, réagir parce que yow instant boobu yow loo gis mooy sa doom nga ànd ak moom sa kër rek. waaw nga ànd ak moom sa kër rek nga doon ut parce que ñun dañoo yaakaar ni sax si lundi bi dañuy jël suñu doom dañu koy jox parce que lundi bi la sama soxna waroon a génn jeudi ci guddi vendredi samedi dimanche lundi la fa am 5 jours ci la waroon génn waaw léegi comme defal nañu facture pour lundi mu war a génn man damaa jàpp man ci li ma xalaat sama xalaat bu gàtt mooy après ñoom dañoo bëggoon a débrasser wu mais waroon nañ fa bàyyi ñun suñu doom soxna si génn ñuy ñëw di nampal si foofu clinique bu dee ñoom dañ ko bëggoon teg continuer teg seen lumière bu la ñoom ba ñu am tane doole ba mu war a am amu ko dafa paan sax lañ ñu njëkk a wax mais ba ma ñëwaatee 4 jours si ginnaaw directeur bi mooy doomu ki moom clinique bi nee na ma doole ba mu waroon a def ci sa doom bi effet boobu def ko ci waaw waaw nee na def ko ci. léegi ñu ne la nga yóbbu doom ji. xale bi def nañ def na ko nee nañ nee nañ beneen xale bi moom def na ci moom effet ba màdd bi génn man leen ak yomb yéen ñoom ñaan ñëpp ngeen waroon a bàyyi foofu bu sama doom di génn àdduna génn àdduna foofu kay ma ko fayal. mais pourquoi may demaat feneen di di di fa fay hôpital Albert waaye ma dem fay ambulance bi. yow kan moo la suggéré hôpital Albert Royer après. docteur Ba docteur Ba ñu naan ko professeur Ba moom moom nga xam ne xëy na man daal jaaxal na ma moom ci ci ci ci doxalinam loolu du jikko médecin médecin ku ñëw wax ak yow am na noo war a tontoo bañ ko mujjee gis man ak sama soxna dañ ko ne ah doomam bëggoon ne ko papa man ko ah, professeur c'est toi qui as entendu de votre fils vous a dit papa c'est toi qui m'as proposé d'amener mon fils là-bas mu ne ma va porter plainte waaw loolu moom mooy li ma gën a naqari man ci yëf bi va porter plainte la ma wax ne ma man tout le monde ma connaît xam nga man professeur nangam nangam doo dara tous ni ma ko waxee ci yeneen reportage moom laa koy waxaatee fii professeur Ba doo tous doo dara lu weesu jaamu yàlla nga ñun ñi ay jaamu yàlla lañ waaw lu ñu tuuti tuuti ay jaamu yàlla lañ yow doo dara lu weesu jaamu yàlla liggéey boobu nga nekk bu taxee nga naan tout le nu ma kone fii am na ñu la ëpp tuut fuuf ëpp la ëpp euh, te ci yar rek lañuy doxal la ñuy doxal. léegi yow da nga da nga da mujj porte plainte wala. déedéet mujj ma porte plainte parce que man du ma jël man euh, man ak sama soxna euh, la ñu yàlla borom bi terale muy tuut tànk bu judd guddi tam xarit doy na teranga nga am chance bu tudd ko balaa moo génn àdduna bu doon metti kay mooy suba la tudd bi joxagoo ko tur mu génn àdduna boobu moo doon metti mais am nañ chance tuddee ko suñu waaju bu góor defal ko lépp li nga xam ne dañ koy defal ko gane si àdduna waaw ba yàlla borom bi dogal tamit xëy na mu génn àdduna kon ñun sant rek lañ ci def. léegi seen anam la génnee àdduna. waaw waaw. Euh, foofu it ma doon di wax euh, foog ma àggali fa sant rek lañ ci def moo tax defu demuñu di porter plainte après di toppaat ci yeneen yoo xam ne xëy na kiiwu ko mais li waral ñun ñuy gën a wax ci télé bi ak rajo bi parce que ñun dañoo buggul nit keneen dem fay clinique ñu ne ko nangam daa paan nangam daa paan moo dul yoon clinique Pasteur da ngeen ma tooñ man Bamba je le o haut fort waaw da ngeen ma tooñ man <laughs> waaw te ngeen yebal ma feneen aussi te man bañ ma yebal foofu clinique euh, kii euh, hôpital euh, Albert Royer sama am na benn soxna boo xam ne dama ko woo téléphone ma ne ko ah soxna si de dañ ko transféré mu ne ma nag na nga def attention lumière bleue boobu ñu ko bëgg a defal am na koo xam ne moo yóbbu doomam te it kooku sax dafa mujj plainte ba ba moom moo ci mujj am ndam parce que lumière bleue bi bu tàngoor bi ëppee mun na indil jafe-jafe xale bi yéen yéen a ko jàng seen liggéey la mais ñun lañ ñu wax tamit doy nañu ñun ñañu ko wax du dañ leen defal dara lu war a mën a tax ñu ñu wax loo xam ne seen intérêt nekku ci ñun suñ doom la moom moo ñu ko wax ci lënd bi ci guddi gi ba ñuy war a transférer xale mu ne na nga def attention avertiroon ma mardi ñu ñëw à 13h xool ci suñ doom ci hôpital Albert waaye macha allah mu nekk si ci li ñu gis ñun jàmm ak salaam parce que ñun indil nañ ko couche euh, ba ba docteur ki fa nekkoon ci salle bi sax daf ñu ne mercredi suba bi na ngeen ko indil huit couches. waa léegi ku leen na nga koy indil huit couches parce que xale bi il se sent bien ci li ma yaakaar waaw ñun ñu bàyyi ba mercredi à onze woo ñu fekk ñun ñi ngi waroon a ñëw pour soxna si nàmpal si woo ñu ne xale bi dafa génn àdduna ñun ca fajar lañ ñu wax ñu ne ñu ci fajar sept la xale bi génn àdduna te ñun loolu lañ lañ laa mënta comprendre waaw bu dee nit ñëw na xool doomam mardi treize heures nga bàyyi ba mercredi exemple à onze heures woo ko ne ko. 7 heures du matin xale bi daa génn àdduna man gëwuma ko waaw ngeen baal ma nag benn kàddu bu ndaw waa Albert waaye waxuñu ma dëgg duma jaar feneen nag waaye waxuñu ma dëgg parce que lu tax waxuñu ma dëgg moo di mercredi boobu ca dimanche ba yëf bi duggee ci média bi parce que man lu waral ma di ko wax si média bi du pour ut lenn ci kenn mais ña ma woo di ma masaw sax man jaroon na ma dugal ko ci média bi nit koo xalaat woo ma di ma masaw ñenn ñi sax am na nu ñu def ak man noo xam ne xëy na man ak ñoom kóllëre ba ñu sekkoon daañ jëflante ci liggéey ba ñu gis sama reportage moo tax xëy na ñu jaar ak man foofu mu rafet lool mais loolu rek man doy na sëkk sax pour ma waroon ko dugal ci média bi mais la ma ci gënoon a jublu moo di moo di voilà ku fayati clinique na fa lépp ne hôpital sax boo fa fayee man ci li ma yaakaar lépp dafa war a ne parce que da ngaa fay fay ma 100 francs fa ma jëm dama war a àgg mais doo ma yàqale may fayaat waaw ak beneen bi it lumière bleue bi man on m'avait averti moo tax ma bëgg sama moroomi sénégalais ñu bàyyi waale ci xel man de du ma ne day yóbbu doomu kenn te yàlla bu mu yóbbu doomu kenn nag ñaan ma yàlla mu yóbbu doomu kenn waaye comme on m'avait averti le lundi di ñu ñëw xool suñu doom gis ko ci biir lumière bleue bi waaw ñu gis ni que macha allah mi ngi ci jàmm léegi bu dee guddi gi dafa am benn jafe-jafe aussi wala ci diggante bi dafa am lu ko euh, lumière bleue bi indil ñoom ñu wax ñu ko ñun buñ ñu ko waxee ñu baal leen ñun amuñu si benn jafe amuñ ci benn problème yàlla moo ñu ko jox moo ñu teralee doom bi guddib tam xarit loolu rek doy na teranga te am nañ chance tuddee ko suñu waajur suñu waajur bu góor te mooy suñu taaw bu góor moom lañ jëkk gis loolu doy nañu teranga après bu génnee àdduna rek yàlla moo ñu ko jox moo ko jëlaat la ñu warloo woon ak moom lépp def nañ ko ba am ay photo ak moom loolu doy nañu teranga kon leneen li du metti yow boo ma gisee may wax ak yow sax si ay reportage loolu même pas même pas deux semaines nga xam ni man yëgaluma ko trop sama yaram donte nag moom metti na waaye doom dafa sax si xol. léegi yow li la metti mooy li mu bi ñu la waxoon ne la moytu ko far nga dem nga jàpp ne sa doom si li ko tax mu ñàkk bakkanam li mu yor bule boobu yow génnewu ko ci. man génnewuma ma ko ci parce que bu ñu ma avertiroon buñ ma avertirul woon du ma tudd sax lumière bi la parce que taxul ma xam ko donte médecin bi moom moo ma ne da nga koy yóbbu hôpital Albert waaye docteur Ba mooy professeur Ba moom moom di ma jaay réew ba naan ma va porter parce que da nga yaakaar ni dara nga ci dëkk moo tax nga ni ma va porter mais garaawul yow moom moom moom yàlla borom bi subhanahu wa taala dinañu àtt bis ba yow di nga rëccu eh, sama doom bi nga transféré foofu mu génn àdduna nga waroon maa wax ni que ah bamba maa la yebal foofu de yaakaar rek laa ci amoon mais yàlla borom bi jëlaat na ko bamba bësal sa xol bu ma ne sax baal ma yow boo ma waxul baal ma sax garaawul waaye nga ne ma bamba ah maa yebaloon foofu massa massa day fejul góomee sedd ah, du dugg ci média laa la wax du dugg ci média donte média bi nag li ma ci gënoon a jublu mooy lumière bleue bi ñu bàyyi ci xel ak tamit ku fay clinique exemple un million ak lu topp na fa lépp ne ku fay hôpital sax cent mille kese sax lépp dafa war a ne lu soxna si ak sa doom bi soog a gane àdduna soxla dafa war a ne dëgg des koy wax wala ñu noppi waaw léegi yow bi nga gisee sa doom après bi ñu ko tegee ci lumière bleue bi dafa fanaan dafa def benn fan ñaari fan wala waaw euh, nga baal ma am na fu ma doon wax sànq daanaka man dama fa mujj génnaat sax moo di li ma docteur bi woo mercredi te mardi ñu ñëw xool suñu doom à 13h mais bu ñu ñëwee xool suñu doom à 13h macha allah pour soxna si ñëw nàmpal euh, mu joxe fa ñu ne ko mercredi na nga indi huit couche ñu bàyyi ba mercredi exemple onze heures bi ñu doon départ war a ñëw pour nàmpal si ñu woo ñu nañ suñ doom dafa génn àdduna soxna si di jooy ak yooyu man ma ànd ak moom ne ko nañ dem. bës suñuy xool ñu dem ñu laaj médecin bi lan la lan moo kii ñu bës suñuy xool dem ba toog docteur bi naan ñu kii euh, anémie dafa anémie dafa nangam xaw ma bëgg ko jiin infection ma ne ko yooyu xanaa analyse yi ngeen ñu def loo moom xanaa génneewu ko woon loolu génneewu ko parce que fii bañ ko fi indi jaunisse rek lañ wax te jaunisse bi dañ ne lumière bleue kase lañ koy teg pendant quelque jours mu mu génn. ndax loolu ñi mu dal bëri na te loolu it daf leen kii saafara loolu du feebar bu garaaw jaunisse ku mës a am doom boo ko dégg boo ko xamul it dégg nga ko ñi ko judduwaale bëri na te tegul leen lumière bu la te ñu ngi dox seeni soxla waaw waaw kon nag euh, loolu laa mënut comprendre nga bàyyi ba mercredi à 11h te li ci gën a doy waar mooy ba yëf bi duggee ci média bi kiy bàyyi kenn ki nekkoon si salle bi te ñu ñëwoon mercredi na nga indi huit couches. maa ngi numéro am capturé naa lépp appel yi ma defalal yëpp bàyyi ba dimanche mu woo ma imagine ku doomam génn àdduna mercredi mu dem denc ko de jébbal ko boromam nga bàyyi ba dimanche yow dinaan ko mardi ba ngeen fa ñëwee à 13h après à 16h da am lu doon génn ci gémmiñu xale bi mu ne ko bëgguma jaar feneen fi sax waaye kooku waxul dëgg ah ah loolu de laa ko wax ma ne ko waa soxna si yow ñu ngi fa jógee 13h yow nga ne ñu suba da ngeen indi huit waaw waaw lu nekk ci gémminu xale bi kay yaa ci def. lu génn ci gémmiñu xale bi ñoom waa hôpital Albert waaye ñoom ñoo ko def si gémmiñu sama doom. te loolu dañoo bàyyi ba dimanche xam nga ku denc doomam mercredi nga bàyyi ba dimanche xam ni yëf bi dugg na ci média yi commencé ngeen am pourquoi mu di ma woo boobu pourquoi lijjantiwul woon sama numéro ca keroog ba sama doom mu ne. à 16h ku denc koo xam ne 13h la ñëw xool si doomam yaay ak papa ñu ñëw gis seen doom macha allah seen xel dal bis boobu la. ah mardi bi déedéet nàmpalu ko parce que ñoom biberon lañ ko doon di jox foofu ah, ndax mercredi bi la waroon def tiirle pour kii ko waa waaw léegi nag euh, pourquoi muy bàyyi ba dimanche moom mu naan ma euh, mardi bi ñu fa ñëw à 16h daa am lu doon génn ci gémmiñu xale bi lu ci génn ci gémmiñu xale bi yéen yéen ko ci def. ndax bañ ko fay indi lundi mu ngi woon si jàmm ak salaam dëgg rek a neex borom bi sama soxna sax ba mu koy téye ba mu wàccee ci euh, euh, sami mu ngi naan xale bi est-ce que liñ ko bëgg a defal soxla na ko est-ce que kii liñ ko bëgg a defal lumière bleue bi est-ce que est-ce que soxla na ko waaw ndax xam na ni euh, doomam bi il se sent bien léegi mu ñëw ñu bàyyi ko fa dégg ndigal docteur yi bàyyi ko fa mais mardi bi ñu ñëw le lendemain xool ko à 13h. moom mu bëgg ñoo wax ni que à 16h am lu doon génn ci gémmiñ xam man ko lu tax woo ma wax ma ko nga bàyyi ba dimanche tey di ma wax ma ko mu ne ma nekkul lu am rek nga woo parents yi ma ne ko <tsk> yéen a ngi gën a dugal seen bopp am na foo xam ne sax bëgguma fa jaar mais ñoom dinañ ma jaarloo foo xam ne gënul waaw parce que yenn yi daal da kenn loolu la kenn mënut a xam yow yow yaa ngi ma woo mercredi ne ma sama doom génn àdduna 11h man ma muñ ba sama xol ànd ak sama soxna suñu xol dem ba ci docteur bi laaj ko lu dul euh, animé la ñu wax infection te loolu ñoom gisuñ ko ci analise bi lundi lundi loolu gisuñ ko pour pourquoi mardi loolu am ñoom nañu wax léegi li indil xale bi loolu moom docteur bi wax ñu te docteur bi jox ñu benn explication ni que mardi bi ngeen fi ñëw démb après à 16h dafa am lu doon génn ci gémminu xale bi waxuñu ko ñu bàyyi ñoom ba dimanche ki nekkoon ci salle bi jël moom responsabilité boppam dinaan def may woo ma ne ko lu tax woowoo leen ñu wax leen wax ñu ko ñun ut ay ñaan tamit def yëfu yëfu yëfu ñaan mooy gànnaayu jullit ku gis dara lu la jaaxal si sa njaboot sa ngaa woo ñi nga am ci ñoom yaakaar te yàlla dénk leen dara ngir ñu ñaanal la si. mais léegi yow bi nga demee ba tiim xale bi. après bi mu gaañoo dafa lan dafa am lu changé si yaram bi walla. waaw waaw waaw ba mu génnee àdduna nag dëgg rek a neex borom bi waaye ba ma ko fekkee ci morgue bi ñu wan ma xar kanamu xale bi man dama ne woon sax ah yéeme na waaye nag man sama doom bi dafa xeesoon pecc macha allah. waaw dafa xeesoon pecc nag mais dama gis teint bi wàññeeku waaw damaa gis teint bi teint bi man duma ne dafa ñuul ba mel ni man ñuulul ba mel ni man ba mu génne àdduna waaye nag gis naa ni xeesaay bi dafa wàññeeku bu baax man li ma gën a jàpp moo di lumière bleue bi tàngoor bi moo ko indil jafe ndax lu waral loolu mooy après dama nekk di xool xàmmeekaay man sama doom bi ànd li ma ko xàmme woon mais yàlla moo ma dimbali dimanche ba ma koy tudd wat bi ma ko watoon moo ma dimbali ma gën kaa xàmmee sinon dama naan du moom. waaw ah, donte nag xeesaay bi wàññiku na tuuti kooku sama doom boobu je di dis haut fort ki ma yàlla borom bi joxoon la mu doon ku baax ku gane si woon àdduna waaw ñëwoon lam ñu indil mag waajuram ñun yi am na yooyu mbiru biir la ñun xam nañ ko waaw kooku nag moom mënoon na am chance bu dund lu yàgg mais borom bi moo dogal mu ñëw delluwaat te borom bi mën na dogalaat mu ñëwaat mais nañ leen leer ni ñoom lu ñu def si sama gémmiñu doom tooñ nañu wàllu yàlla bu ñëwoon delluwaat ñoom tooñ nañu wàllu yàlla ndax nit lu ko dal wool ay parents buñ mënee ñaan ñu ñaan yàlla borom bi buñ mënee ñëw ci saa si hôpital ñu ñëw foofu ba keroog seen doom di génn àdduna si seen kanam waaw mais pourquoi 16 heures sa doom daa am lu doon génn ci gémminam te yow ñu ñu jóge fa 13 heures pourquoi jëloo sa téléphone woo ñu nga bàyyi ñu ba mercredi à 11 heures di ñu woo waa Albert waaye ils sont des menteurs waaw ñii waa Albert waaye bu ñu waxee loolu waxuñu dëgg waaw bu ñu waxee loolu ni que euh, mercredi ci fajar la sama doom génn àdduna 7 heures du matin waxuñu dëgg il ment parce que kenn ku bokk ci ñoom moo ma woo te kooku moo nekkoon ci salle bi kooku moo nekkoon ci salle bi doon surveiller yeneen bébé yi fa nekk kooku moo ma ne ñun ba ñu fa ñëwee mardi à 13 heure à 16h da am lu doon génn si sama gémmiñu doom man ko lu tax woowalee ma te woowalee ñu téléphone pour ñu ñëw ñu ne ñu déedéet lu am rek nekkul parents yi dal leen war a woo nekkul lu xew rek parents yi dañ leen man ko ak a yomb yéen yéen loolu lu nu mu war a mën a nekkee ça veut dire yéen kon ñoom ñaari yëf yu bokkul lañ ma jox kii ne ma ci fajar la sa doom génn àdduna woo ñu 11 loolu rek tooñ la bokkul ak euh, mardi ñun ñu ñëw fa 13h kee bëgg ñoo ni ka à 16 da am lu doon génn gémmiñu xale bi xaw ma ñu yóbbu ko sa réanimation jéem seen kii yeeg nangam nangam lu mu wax tegul fenn ñoom ñëpp lu ñu wax teguñ ko fenn parce que nit da ngay wax benn yéen ñëpp waa hôpital bi ngeen ànd wax benn wax parents yi dégg ko muñ nangu bu yàlla borom bi ndax parents yi nangu lañ ko bu yàgg yàlla mi leen ko joxoon xam nañu moo ko jëlaat waaye nag doxaliinu hôpital bi it foog ñu dénoncé ko waaw ngir ëllëg it ku leen joxati ñu bàyyi ko xel. bi amoon ay kaay kaay hmm. du jeex ndax man li ma woo ci ay nit ne ma sama doom daanaka nii nii nii la demee. donc yow sa émission bi mu duggee ci réseaux sociaux yi dafa am ñu la woo ñu bëri la wax ne dund nañu kaay. ñoo xam ne dund nañ kaay yu mel nii. ñoo xam ne dund nañ leneen lu ko gën a met sax amaana ci ci ci ci hôpitaux yi am ci ñoo xam ne seen doom laa la jaunisse lañ ñëwee kenn ki nee na ma ñaari doomam yëpp jaunisse lañ amul mais kenn si ñoom teguñ ko lumière bi la te ñu ngi dox seeni soxla benn jafe-jafe amuñu ko. loolu moo laajul obligatoirement ñu teg ko loolu xoolal beneen xale bi nga xam ne ñoom teguñ ko lumière bleue boobu nekk hôpital Albert waaye mais xale boobu génn na macha allah ci mardi bi ay parents am yóbbu nañ ko yàlla moo tudd ni xale boobu dafa war a dund yàlla na dund lu yàgg mais ñun yàlla moo tudd ni suñ doom boobu dafa war a génn àdduna ñun nangu nañ ko waaye lumière bleue bi ni mu demee ñun moo ñu metti ñaari nit yu amandoo doom. kenn ki nga opéré ko ah, nga defal ko césarienne à 23h ah, keneen ki nga defal ko à minuit mais ñoom ñaar ñëpp nga xool defaat yeneen analyse def analyse la lendemain waa ñu bokk ay résultats ñoom ñu nekk fen di faju pour pourquoi ngay transférer kenn ki pour pourquoi lundi ñu defloo ñu analyse man ak beneen papay xale bi macha allah di sama moroom di nit ku baax ñun ñaar ñëpp ñu fay analyse yi ñoo bokk li ñu fay ñun ñaar ñëpp ñu gis ne suñu doom yi dañoo am jaunisse mais lumière bleue bi ñoom ñu bëgg a wax ni que seen boos. doole bi mu am ci doomu ñooñu amu ko ñun si suñu doom. da nga jàpp nañ fa bàyyi doom ji mu fanaan si moom ba mujj lakk yaram parce que yaa ngi naa xale bi yaram dafa ñuul waaw man li ma jàppoon moo di xale bi euh, guddi gi lañ ko surveillé wu rek ndax ñun bëccëg bi ba ñëwee à on à 13h man ak yaay ji gis nañ suñu doom macha allah suñu xel gënoon na dal waaw parce que ki nga xam ne téye nañ ko démb ci waxtu woowu ci lënd bi ñu téye ko mardi fekk ko hôpital exemple. Euh, mard bi démb ñu téye ko ci clinique ba ba yaay ji nàmpal kook defal ko lépp mu fataw ak sama beneen doom mardi ci waxtu woowu amaana fekk ko ci beneen hôpital Albert Royer mais ñun ñëw xool ko suñu xel gën a dal léegi pour pourquoi euh, euh, lu ko arrivé ci ngoon si rek ñu woo ay parents pour quoi ñoom defuñu loolu waaye tamit man li ma jàpp moo di lumière bleue boobu rek man moo lool sama doom man moom laa ko jiin parce kii ne ma sa gémminu doom dafa am lu mu doon génne à 16 heures nit kuy génn àdduna ku ne lu nekkoon loo lekkoon amaana mën na génnaat loolu sa normal mais lu génn ci xale bi ñoom ñoo ko ca def waaw te kii wax ma lii beneen docteur bi bañ ñëwee. léegi seen wax yi moo moo àndul daal àndul dañoo nekkul si dëgg moo tax. hôpital Albert Royer clinique parce que tooñ nañ ma parce que tooñ bi ñu ma tooñ mënut a weesu nit ki loo ko mënti fayee boo ko fayee woon sax 10 francs na fekk la mu soxla lépp nekk fa waaw wala bu fa nekkul yow nga jël ko yow jël doomam yóbbu ko fenn fay lépp yaa war a fay lépp parce que doomam si say loxo lay juddoo mais yaa war a fay lépp dem toppatoo ko. waaw léegi nag comme defoo loolu moom mu jël fayal boppam dem hôpital ba jënd ay ordonnance am ak li xale bi di soxla lépp waaw fay analyse yi jënd couche indi la laan demee mu ñëw moom ak yaay ji ñu xool seen doom macha allah mu nekk si jàmm a 13 mais pourquoi. le lendemain mercredi ñu woo ñu à 11h à 11h euh, mën naa ni jeudi ci guddi la juddu mercredi ñoom ci li ñu wax man tax gëw ma mercredi bi. parce que kii kii kii la waxaat ma ci dimanche ba ne ma. ñun bañ fa ñëwee mardi à 16h da am lu doon génn ci gémmiñu xale bi loolu mooy lan pourquoi woowuñu. la ma jama génn man mu loo lu tax mënuma jàpp jour mooy mënuma bàyyi waxu docteur bi jàpp waxu ki nekkoon ci saal bi. lu tax léegi après jàpp waxu ku nekk ci saal bi bàyyi waxu docteur bi. dafa ma jaxase man mënuma ne di mënuma ne mercredi. mais mercredi ñun lañ ñu woo. voilà mi ngi noonu mi ngi noonu lan moo tax après defu autopsie pour am si lu gën a leer ne ñu 7 heures matin la xale bi ñàkk bakkanam mais ci saa si man sama xel du dem ci loolu man li ma jàpp mooy teranga bu ma yàlla joxoon la yàlla moo ko jëlaat man bu ma xool woon sama doom ci morgue bi du du ma ci jàpp dara yàlla ma dimbali ba ma pour que tamit nit ki xàmmee Euh, donc yow aussi ni ma déggee nga wax bu doon wat bi sax doo xàmmee ne kii sa doom la parce que lakk-lakk bi. Euh, waa du ma ne dafa lakk du ma ne dafa lakk mais lumière bleue bi tàngoor bi moo ëpp ba wàññi mën naa ne xeesaay bi waaw. waaw waaw waaw daf ko wàññi xeesaay ba man ki ma ci photom ak ki ma gisoon yàlla moo ma ba ma xool bopp bi ba ma koy tudd wat bi moo ma ci gën a gën a jàppale moo gën a tax ma ma xàmmee ko te it nag moom teraanga bu ma yàlla joxoon la. te moom moomu bàyyi ma jaba moomu dewaat génn àdduna dafa sori lool ci sama xol parce que moom moom moom ku ku baax la woon ku tedd la woon sama doom la deful sax une semaine ci kaw suuf waaye ku naroon a bëri njariñ ci kaw suuf la mais yàlla borom bi nag moo tudd ni dafa ñëw yendu si demaat mais ci kattanu yàlla ak baaxam dina ñëwaat xaw ma nag ci ban soxna moom lay jugee ci sama soxna si ma yor laa ñaan mu jugee sax waaye fu mu mënti jugee moom dina ñëwaat ci kàttan bi yàlla te bis bu ñëwaatee incha allahu rabbi Sénégal yëpp nañ xam ne am na kok borom bi am na lu mu ko tegoon xëy na ci ay natt mais am na lool après jur jur na ko moo tax moom sant nañ yàlla ci moom maa ko dugal ci biir suuf sant ci yàlla bu baax a baax waaw waaw waaw sant waaw waaw lépp waaw waaw dëgg la dëgg la waaw man daal li may gën a lancé moo di moom lumière bleue moom xaw ma kuñ koy proposé ti de waaye na nga bàyyi xel docteur yi même boo mënee taxaw si bunt bi sax comme ni may café di ko wax li leen nga fëgg leen ne leen bàyyee da nga surveiller xale yi waaw waaw ndax ndax ndax ndax ndax kii bi <laughs> tàngoor bi ëppul waaw man moom bu dem bu doon tey ci bunt ba laay taxaw parce que on m'avait averti mais bu la ci loo xam ne xamoo ko dangay ngay dalal gum sa xel ba keroog nga gis mais dañ ma avertir doon am na loolu gis naa ko waaw waaw waaw donte nag boroom si subhaanahu wa taala moo ñu ko jox moo ko jëlaat waaw te te lam ñu joxoon nag dafa sori ci ñun te teranga la boo xam ne ñun bañ ko téyee xam ne ñi teranga gënu kaa màgg te sant nañ ko nag jëlaat bi mu ko jëlaat waaw ci jël bu sedd bu bu bu taw féexe waaw ñu ngi leen baal waaw uh-huh. waaw waaw soxna si moom mi ngi am tawféex moom mi ngi sant moom xam naa sax maak moom dañuy dem féexali suñu xol incha allah rabbi. ndeysaan dégg ngeen ko noonu. macha allah macha allah macha allah. dégg ngeen ko noonu mu nekk loo xamante ne lu dooy waar lool lool lool la dégg ko moom mi nga xamante ne mooy Bamba faal di doom si ma Madiama Fall nekkoon transporteur bu mag mi nga xamante ne moo amoon doomam bu góor tudde ko waajuram wow di ma Madiama Euh, xale bi juddu alxamis nekk ci clinique bi ñetti fan yu yóbbu ko Roi Bleu mu nekk fa moom itam bi mu fa defee ñaari fan yàlla def mu ñàkk bakkanam mais moom ci li mu jàpp que ne doomam li mu yër bu la bi ñu ko tegoon te affecté nañ ko moom ne loolu moom moo yóbbu yo njaw mu ngi ci dese diw xam mu nekk loo xam ne lu doy waar loolu mais ñun li ñuy dénoncé rek muy li nga xamante ne mu ngi faral di am ci hôpital yi dëgg la ñuy gàmmu ak ñuy raas démb bokkuñu dégg ko dugal ci machine mu nekk boobu perte boo xam ne ne bu metti la dégg ngeen aussi yi nga xamante ne day faral di am si hôpital lu ci mën ci am rek lépp loo waat ba def ko kon nag ci gën a bàyyi xel parce ñun bu ñu feebaree yéen la ñu yaakaar pour ñëw seen faju donc ki nga xamante ne bu sa bët di metti si moom ngay dem ki nga xamante ne booy yuuxu walla fa ngay jëmale sa gémmiñ yaakaar naa kon bu ñu ñëwee war ngeen ñoo dalal war ngeen ñoo gatandu ndax dem mettiwul mais demin moom moo metti donc moom doomam ni mu demee noonu moom moo metti ñu ngi koy massa bu baax baax di koy ñaanal yàlla na nga yàlla mayaat ay alaaji ma jama yu bëree bëree bëri ba waa 7TV ñu ngi koy massa bu baax a baax yéen itam bépp cas boo xam ne am ngeen ko gis ngeen numéro boobu ci bas écran bi bu émission bi daw man ngeen ñu woo ñu ànd ko ak yéen ndax naa émission xew-xew fait divers la kaa la xew-xew la lépp loo xamante ne day xew rek dañ koy ànd ak yéen ndax émission bi loolu moom moo ko tax a jóg tey kaa bi ñu leen indiloon muy kaaw bébé ma jama ñu ñëw tegoon ko ci table bi waxtaane ko ak way juróom yi nga xam ne moom moo ko dund mu nekk lu doy waar lool leneen beneen négligence bu juddu ci hôpital yi ci xale boobu boobule ba mujj mu ñàkk bakkanam te amoon na la veille moom keneen ku mu wax ne kooku tamit dundoon na laa me chose kon ñu koy masawu baax a baax baax rendez-vous mardi lay doonaat si kattanu suñu borom baa xam ñu àndaat ak yéen si émission xew-xew di jaajëfal papa baax a baax Pape Diop moo nekk tey ci caméra bi Paalo moo nekk ci oto bi jërë ngeen jëf ba van ba mardi incha allah 7 TV, votre chaîne préférée vous suit partout. Et